want. Jene sen sen, Rumi Venkat TV. jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fas ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek bànqaas bu rëy moo daal di fàq rek foofu ci alliance pour la république di APR kii di Abdoulaye Diouf Sarr laa dinay jógee ko nag ci parti bi nga xamante ne rek kii di Macky Sall nag moom moo ko daal di dirigé ginnaaw campagne bi nga xamante ne rek doon na ko ci yàgg amal ci wàccaay élection yi nga xamante ne rek moo ñeer élection législative yi kii di Abdoulaye Diouf Sarr laa dinay jógee ko ca alliance pour la république ke DAPR ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci Ahmed Suzanne Camara mi nga xamante ne rek ñoo ngi ko daal di làq jant bi depuis le 30 juillet ba nag ni rek dinañu xuusandi nag ci ab dossier am niki suba ci talaata ji moo ko juróom-ñetti fan ci weeru octobre ci atum 2024 ginnaaw rek juge bu yees bu d'instruction bu troisième cabinet nag fas yéene na ko déglu rek niki ëllëg ci talaata ji ba tey ci wàllum élection législative nag niki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre kii di Abbas Fall nag moom moo nekk tête de liste bu Pastef ca diwaan bu Ndakaaru moom ex député bi di Abass Fall nag la ñu teg rek mu nekk tête de liste titulaire bu Pastef département bu Dakar ci élection yi nga xamante ne rek fas yéene nañu ko jëm niki 17 novembre 2024 ñu daal di cay toftal moom mu nekk ca bopp ba ka topp di Fatoumata Sané mu nekk nag beneen bétail boo xamante rek ñu koy daal di xaarandi ca diwaan bu Ndakaaru ci diggante nag maire bi di Barthélémy Dias ak kii di Abbas Fall mi nga xamante ne rek bu yàggul euh, dara rek moom ci jëmmi boppam rek nekkoon na adjoint bu maire bu ville bu ndakaaru ñu fàttali leen rek juróom-ñaari chaise yi nga xamante ne rek ñoom ñoo ñëpp ñu ngi ci doon waxtaan ngir ñeel département bu Dakar ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jugee foofu dañuy àddu rek wax ci ab patriote buy wuyoo ci turu Aïcha Camara fekk baax ca diwaan bu Tëngéej di dund nag ca diwaan bu France nekk nag mag ci ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye kamara nekk candidat ci élection législative yi nag moom ci jëmmi boppam rek rek nag la bokkoon ginnaaw bu mu yëkkatee ay kaddu rek daal di koy jagleel nag eh, ki fi nekkoon paysan de la république di Macky Sall ci ab vol boo xamante ne rek lañ bokkoon foofu ca diwaan bu Maroc doon wutali rek diwaan bu France ci anam bu doy waar bi nga xamante ne rek moom la yore woon nguur gi ak ñu ci bëri ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan ak ñi nga xamante ne làq nañ leen jant bi ak ñi nga xamante ne rek dañ fee daal di gàddaayee eh, ci kaa bu nu mel nag moom ci jëm boppam rek nee na ko coono bi nga xamante ne daal di nga koy teg nag askanu Sénégal li nga xamante ne rek moom mooy suñu àq dina la topp ba faw ginnaaw bu mu yëkkatee yooyu lay kàddu nag kii di Marème Faye Sall moom ci jëmmi boppam rek da ko daal di attaqué ci la ay saaga dox ci seen diggante jamono ji ñuy wax nag kii di Aïcha mi ngi ci yi police marocaine yi ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy autorité yi nag daal nañ leen ci interpellé ngir justice ci kii di Aïcha du ñàkk dinañ ci ñëwaat yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën am yeneen i xibaar